côté lu xaw a garaaw loo xamante nii danga ne sa rak magu sëriñ la euh, sëri kon sëriñam nga war a doon waaye ojoom bi mu wax dafa wax ne bu sëriñ desoon ci yow rek du ma jébbalu ci yow loolu wax ji man waxuma du waxinu du ma ko jàppee waxinu yare di waaye damaa jàpp ne am na lu loo ko def lu ko garaaw lu ma xanaa déedéet cest à ah. mooy moom man bu dul sëriñ desoon ci man man du ma jébbalu waaw ah. lekkuma xaalisam mm-hmm. saaguma ko xasuma ko waruma ko. Hmm. xam nga politique la. da daa gisut yow jikkoy sëriñ. boobu sëriñ la weesuwut lii. Ah. man fee weesuwut lii. Ah. man defe naa ne man. Ah. jàng naa fa mu war a jànge xam naa la ma war a xam te maa ngi pratiqué loolu amul problème. maa ngi pratiqué te kenn dégg ma fenn fa mu war a dégg kenn gisuma ci loo war a gis. audio bi yaaw yaa ma ko wax waaye dégluwuma ko. Hmm. barke siñ ma war a jaara dégluwuma ko. xam nga dañuy politique. Hmm. moom ci boppam mu bokk APR. Hmm. man ma bokk ñii contre APR comme ni mu ko waxee woon fii ci suñu dernière interview nga ne ma hmm. sëñ Maodo man musuma gis nga waxal Macky lu baax. xam nga fii nga ko waxee ci waaw waaw dégg ma ne la ko lu baax. Ah, bi nag <laughs> xamaloo ko lu baax. déedéet xamuluma Macky ah. ah. xam nga lan la ñu coûté ñun. xam nga lu mu ñu coûté. xanaa xamoon na tey ji yow ah. ki ñëw ngir la tabaxal maanaam hôpital bu seer hmm. te fekk jamono bu muy tabax hôpital pour seer hôpital hmm. nit am na problème ordonnance ba fajuwut bala ngaa tabaxal nit ko hôpital di ko tabaxal lu mu xam nga loolu dëkk def da ngay ba mu fexe moom bu am bëggee fajoo am lu mu hôpital bi tey ji bu ñu fa defoon matériel yi a sophistiqué gën a baax gën a mën a faj taxul ñëpp mën a faju parce que amul lu ñu loolu moo dem paj teg nañ dañ cee participer ndax suuf si ñu bari neen ci wàll ci mesare la bokk man mi maa bu ñu ko doon sédd ba ñu séddale sax jox nañ ma fa am ba ñu ngay séenante dañ mm. ma fa jox bañuy bañuy bañuy miraas mm. lañ ma donale mm. ma hôpital ba ñu ngay waaw ah, comprendre mu dikk ba foofu ci seen tool mu def ko loolu nga leen naa ci am sañ-sañ nga xam mu ko fa amoon du demee noonu ah waaw parce que hôpital première mooy la ca war rek comme ay comme ay dédommagement defuñu ko waaw suuf sa la ca war comme ay dédommagement defuñu ko ah joxe nañ ci xaalis joxe nañ fa xaalis mais lañ fa joxe moo baaxut ah àdduna noonu lay léegi nu jéggi foofu seen bi ñu ñëwaat ci eh, sëñ bi yow bi ñu lay xam dalaa xamoon ci groupe whatsapp yi Mouhalim foo ginnaaw bi nga jóge fa. lu wax Mouhalim. wax nga ah Mouhalim ah? man xamuñ ma fa man man man maa fexe man xam Mouhalim ay Mouhalim xamuñ ma fa. ah man ci genn groupe lañ ma xam mooy no stress bil ihsan. Hmm. ñoom ñoo ma jëlee no stress indi ma Mouhalim. te ne ma audio booy def dee ci tudd Mouhalim. kon lu tax ñu ne ma del tudd muhallim baat boobu lan lay signifié audio booy def booy ubbi na nga wax muhallim booy daane na wax muhallim lu waral ñu wax ma loolu ñoom ñoo la ko waxoon waaw ñoo ma ko wax waa lu waral lu tax ñu génne lay ma ah. am beneen site bu ñuy wax IYAT TV dalal na hmm. mu naqare leen loolu dong la IYAT TV hmm. mooma dalal ma partagé ko fu ñu noonu boo partagé te ngir defal ni promotion or man leen man kenn tënku ma ci àdduna amul ba ci IYAT TV gii nii kii may àndal liggéey ci hmm. koo xam ni waxtu bu su ma gisee ci site ma dem ba ñëw. Hmm. dafa may wax man seen fu ma nee seen sax ëpp na foofu man damaa bëgg nga dem ba toog Al Jazeera wax. Hmm. loolu laa bëgg ci ko may àndal foo ma gis rek nga xam ne. waaw waaw waaw yow kenn waru koo tënk waaye ñoom. ah kon ci yow benn effort yow daal yaa tax ban xam mu àllim. mu àllim daal defuñu ci man benn effort. Hmm. xam nga mu àllim man dong nekkuma fa. ñu baree nga fa kan nga fa xam. koo fa xam. am Moodu ak Xaadim Caam ay jàmbaar lan de Moodu déedéet ci li la bëgg wax mooy man doomu hmm. xam nga Moodu Xaadim Caam ñoom ñoo ko moom waaw ñoom ñoo def information man joxuma hmm. information man analyse laa def hmm. man bu dee moo xam moo xam li man ëpp nañ lu mat cinq cent personnes li tax xamuñ xamuñ cinq cent personnes yëpp parce que bu dee ku ne ci groupe ba ñu xam laa kay dañ laa war a xam. sëñ bi nag yow la te sant ma yow xamee nii da nga defe ne eh, eh, da nga nga sant Mbàkke. waaw ma ñëw ma ñëw da ngay def nii eh, maanaam li ko yóbbu niveau bu kawe ci xam la am ci sant bi yow loo ci jàpp. man xam laa ko rek. parce ah. man dong sant ma ko te fii Sénégal ñi sant Mbàkke ñuy wax ñi dañu déglu boo doon wàññi fukk yi ci génne waaw. Hmm. waaw xam-xam laa ko teg fii mérite moo fi am. Hmm. gis nga sant Mbàkke. Hmm. Sëñ Tuubaa la ko fekk. te loolu na fekk ñuy sàmm ñu doon ay sàmm ak di jàngale. amuñ lu weesu lii. effort am moo tax ñu ko yóbbu ñuy wax di tudd sant Mbàkke effort mooy adduna. laa taxul asli wa fasli abadan innama aslul fataama qad hasal borom xam bi dañ bul nekk naa sama nday sama baay sama nit ki lim am moo ko liggéeyal boppam. Seydou Amadou Lam ñëpp dagg na ne Sëñ Tuubaa mosuma nee na ko si Ahmad Ndumbe Marsin bi ju leen Morante si moo ko ne. mu ahmad dumbe marché li mosumaa gis sa dut bay dina fakkam ab yin xat xalaat yëpp mi sura sarafin kamaa xalaat bi rasulillahi xat naa na waa doom yoo xam wa alihi wa sahbihi wa sallam la même chose te loolu rampe la def dafa rampe sëñ li nga wax kon day mel ni mm-hmm. mm-hmm. loolu mm-hmm. affaire def maam def la waaw effort la ko wax ne bamba sa bamba sa bàyyi dëgg bu wér mu ne jugal dem lambar nu del suñu gës loolu lay wax Euh, sëñ bi nga waxoon nga nit ñi liñ bëgg a jël mbir mi ne waaw ñu bëri nañu ko wax sa sant bi da ciy suwe man donc sant ah, man man loolu du ko ma ko nangu ci àddina. am euh, ma ci kenn fii. Ah? mais wax ma ci kenn ak nit rek sëñ Saliou. dama mu ko de parce que hmm. amaa benn xamata rabbi fadis yàlla dafa wax ni. Hmm. bala maa bég dëgg ci yéen mooy lépp dafay nekk. Hmm. ma jox ma jox leen lii xañ ko li ma leen jox yéen wax leen ko de keneen jox keneen na koy wax bu ma fu mbir nekk maa ko fa yóbbu du problème boobu du affaire sant Mbàkke man dong sant ma fi Mbàkke déedéet en tout cas biir wax ji ci biir mi nag wax ji mm-hmm. fi mu la ba nga àgg fa mm-hmm. euh, fonkal gi ñu lay fonkal da nga yëg sant bi moom tàbbi na ci mm-hmm. waaw loolu da am day jur waaye da nga yëg ne itam am na ci loolu boo ko santan pare di ko def ñu xeebe la ko dañ la koy waxaale te bu sant Mbàkke di def di moom may def nit ñi accepté accepté wuñ ko woon dañ ko daan def léegi nag man ñi njëkk fexe bañ accepté ko man ci laa bokk. ñu accepté la. Euh, politique bi comme nii dañu wax sax di analyser man bu jëkkoon. Hmm. suñ taalibee kër yi maanaam hmm. hmm. naan la man ñu ma ciy encouragé bu baax. parce que que booba nit ñi comprendre lu ñu woon te waa waa gouvernement bëgguñu woon nit ñi ne man nag comprendre nañ wala bu comprendre tam bëgg nañoo comprendre. loolu li nga yow def ni ban influence la def ci nit ñi sa kii bi ngay def. maa ngi sant yàlla bu baax kooku moom nit ñi xam nañu ndax hmm? kooku moom maa ngi sant yàlla nit ñi xam nañu ban hmm. influence def ci doomu aadama waaw am na ci ñoo xam ne tey jii bu ñu àndee Ousmane Sonko gannaaw yàlla sama jëmmata hmm. waaw barke Sëñ Tuubaa am ñoo xam ne tey bu ñuy quitté ci ay réew ci Europe di dem ci ay réew di fekk yenn yi ginnaaw yàlla sama jëmm a tax parce que man li ma leen di wax ñoom ñoom gëm nañu ko li tax ñu gëm ko mooy ci alxuraan ak sunna laa koy def ndax man damaa dem ba xam ne loolu nit ñi alxuraan ak sunna moom gëm nañ ko man loolu xam naa ko moom loolu mu sikk sàkkuma ko waaw laa xam nga gëm nañ ko ginnaaw gëm nañ ko nag man ma jaarale ci mbir yi ngir leeral ko ñoom politiciens yi arrangé wu leen ñu ne ñu ne ñu ne demul demul fee fii la yem te loolu du dëgg amaguñ ci def mu la yem fii te jëmul fee ndax mbir yëpp ca euh, ca kanam ca àll ca àll la ëllëg la ko yàlla yi àtte innaka mayitun wa innahum mayitun suma innakum yawmal xiyaamati inda rabbikum taxtasimun la alxuraan wax dangeen ngeen di da ngeen di wëlbatiku daal di dee. Mhm. bu ëllëgee ci seen xuloo yàlla la ko àtte ci kanam seen borom. léegi léegi lii nga jël nii politique bi kañ nga gi taxaw pour dem see def ci leneen wala lii nga mooy sa bi nga nar a liggéey waaw nga def lii ngay def nii comme bokk du jàngaleem diine. jàngaleem diine la kay. déet li kay du diine si lan du diine maanaam fexe ba nit ñi seen dund ñoom. Ah. jàngaleem diine. Ah? fexe ba nit ñi seen dundu ñoŋ hmm. fexe ba nit bàyyam lu moomul mu bokk fa hmm. fexe ba nit lépp lu nit ñi bokk nga séddale leen ko fexe ba nit ku wér di faju hmm. fexe ba ku xiif lekk ku mar naan fexe ba alxadaalatu ak justice dox ci kaw àdduna loolu du jàngaleem diine lu baax lu génn diine amul lu tax nga ne leen koor gi mën ngeen no bañ a woor sax bu nii kii Ousmane Sonko déedéet dama ne waaw maanaam comme défendre seenam réew ak seeni frontière lu ci aju man ngeen a bañ a woor ndax saxaaba yi ñoom ba koor gi dikkee ñuy ñuy xare ñoom wóoruñu gaa yi daal di borom xam bañ tëbee dañ ma ne lu toll ni saxaaba nga ko ci tudd ñàkk war mhm. ma ne leen nit ki doo jël dimension yi mu am mhm. da ngay jël nit nga delloo ko ci insaan gis nga yente bi mhm. saa su gaa yi masaa wax danaa wax ne xul innama ana basarun mislukum yuuxa man bi neef laa ni yéen su ma différence ak yéen loolu la muy man dañ may waxte waxuñu leen loolu nga ne saxaaba yi wóorun woon wóorun woon ma jox na ci séer bi ñuy wax am na ci benn saxaaba boo xam ni biñ demee ba taxawal sàppe mm-hmm. mu yor ay doomi tàndarma di ko lekk mm-hmm. yonente bi ne ku faatu ci xeex bii dem aljanna mu mm-hmm. sànni doomi tàndarma yam doon lekk te loola te xarab bi ngi tàmbali neuf heures di sept heure boobu heure koor la bokk na ci Hubbaab ibnul Munzir nee na yonente bi nañ root ay mbalka mbalka yi suñ maree naan buñ maree naan booba fastajaaba lahum rabbuhum li alquran wax ba ngeen sàkkoo xetal yàlla indi nam ndox xetal leen te booba ñoom ñi ngi doon naan xare bi bi mu démarré sax malka hmm. yi julli di ko doon naan hmm. ba lenn ci yëfati bëkkee naan xam sa am na ku ci rey loolu kenn du koy de hmm. euh, léegi kii nu mooy waaw gis nga lañ doon def taxawal julli ak koor moo waral loolu lañ def yow nga bëgg a méngale ñaar yi. dañoo méngale diine lan doon xeexal yow ñii di xeexal. waaw xeexal diine xeexal waaw. waaw diine lu ko tax a jóg du doomu aadama. Hmm? diine diine du doomu aadama ko tax a jóg. waaw doomu aadama ko jóg doomu aadama balañ laa sant ngay woor. Hmm. tey jii xanaa xamal ne suñu saalu tey nit ki. Hmm. su ko sëriñ ne ko wooral docteur ne ko bul woor parce que mënoo ko xam nga ne waxee docteur bi lañ gën a jàpp. waxe foqahaahu afqahul foqahaahu jamiian. waaw docteur bi da koy teg ci sa wér. ci sa wér santé bi waaw. très bien léegi nag gomi ribaatil xëy li turhibuuna bi aduwwallaahi wa aduwwakum maanaam jëmmi nit ki yàlla dafa wax ne bokk na ci yéen ngeen sàmm seeni frontière léegi yow li nga ne. ma ma ko euh, rafet na ci yéen ngeen sàmm seeni frontière sàmm seeni frontière mooy ba dajee bokk rek. Mm-hmm. maanaam luy ak maandu nga fexe ba mu sax ci kaw suuf lu dum dëngate nga fexe ba nga fexe ba mu jógee fi. Mm. kon maandu daa amut woon ah. maandu daa amut woon ci. ba tey ji maandu te amut. Mm. ci Sénégal. waaw ba tey amul Sénégal. pourtant président Macky Sall bàyyi na troisième mandat ngir bëgg maandu. ragal ragal ko tax def. ragal kan ragal parce que dafa ragal mooy. ragal kan kan ñum Sénégal yi de yow kay boole sa bopp Macky Sall man ragaluma man mi bañ a kaa ragal. moom ku jël sa responsabilité jàkkaarloo moom ragal na la parce que li tax. Hmm. mu jaar ne man bi maa ngi yor yëpp booba ragaluma est ce que maa na ko de ki ñeme du wax loolu ki ñeme. Hmm. la xamal ne moo jiite ragal yi. Hmm. waaw fi dëgg. nit ñee ko koy seeral. ab ragal nit ñaa koy jaay. ah sëñ bi xanaa yow lii la gars yi wax ah. ne ah, la da ngaa discours autant nga nga <laughs> eh, li nga ci ak sa liggéey yàqu ci. yooyu waaw ba loolu waaw bien sûr. xam nga yéen ma bëgg hmm. intégralité bi. Hmm. émission boobu yàggul amul gul semaine bi su bisu bi sax dellu seegul. waaw demal seen intégralité bi hmm. man damaa wax a wax ba yàgg sonal sama bi kenn mënu laa satisfaire hmm. yow fu ñu wax nga jëm fa des hmm. ma ne ko man nit man damaa satisfaire man ma daal léegi hmm. fi may tëjee mooy ñun daal nañu ko waaw ñun ma laay ñaan élection yu transparence ñëpp mbokk te coow bañ a am man xeex ma ne ko bëgguma ko ndax bi yéen loolu ngeen di waxee da ngeen da ngeen mel ne yéen da ñëpp bokk élection yu ma sa am ñëpp bokk dina am ñu dul bokk waaw mais ñëpp élection yoo dem ñëpp ñi dul bokk dañoo bëggut bokk. déedéet déedéet déedéet day am élection bi amu fi ñoom Ousmane Sonko bëggoon a bokk bokkul. ñoom Khalifa Sall bëgg a bokk lan bokkul lan moo leen tee bokk am bëgg mu jeex. Hmm. bëgg a bokk te doo mën a bokk lañ bëgg mu jeex xam nga luñ bëgg. Hmm. jamono Abdoulaye Wade. Hmm. ñaar lañ fi éliminé woon Youssou Ndour ak Keba Kent. te problème parrainage la ñu éliminé. te booba parrainage yi am bokkut ak yii ni fi amoon. booba amoon nañ quinze candidats. ñun nag loolu lañ bëgg mu libéral dégg nga ku bëgg bokk bokk c'est-à-dire moom sëñ Saliou Niang mi sax bëggee bokk bokk ñun amuñ problème wu mhm. maam na Ousmane Sonko bokk mhm. maam réew mi nag delluwaat ci moom la waa réew mi ku bëgg a bokk bokk ku bëgg a bokk toog mhm. dégg nga Ousmane Sonko ci bu dikkee damay bokk damay bokk loolu lañ a dem ngir bëgg maanaam ñii bokk ñu bokk loolu la ñuy bañ loolu la ñuy bañ loolu mooy loolu mooy suñu discours hmm. nii. waaw léegi ñu ñëw sëñ bi kon ci loolu eh, jeexal nga sëñ bi ci saytu Sénégal yi tamit ñu bari nee nan dañoo mer waaye maa ngi leen di eh, jégalu ah. ñoom dañoo mer waaye maa ngi leen di jégalu. ah da nga leen a tooñ xanaa. waaw ah, waaw tooñ gi mooy. ñoom ah. bi problème bi amee lañ mën a duggal leeral ma. waaw ah. leeral ñu wax nañ dëgg ñoom ñoo ñu war a ñoom mooy ñoom ñoom laa war a jëkk waxal hmm. waaye ñoom itam daa bëgg ñu comprendre ma ci benn côté hmm. nga sëñ Saliou coow jibee nga bëgg daal di répondre directement mën que nit ñi bala ngaa wax da ngay suuraal yett ci maanaam li nga war a waxee. li nga war a wax. Mm-hmm. Mm-hmm. fexe ba wax ko nam amee. Mm-hmm. comprendre nga. fexe it suuraale opinion doomu aadama yi fan la jëm. loolu nag mën mënoo teg brusquement rek. coow ju nga nga dugg ci. est-ce que xam nga baax parce que faaw nga xam nga man analyse bi ma amoon ba ma fay dem bokkut ak analyse bi ma am actuellement. ah maanaam ah, ba may dem ki ki ma ànd ak ki ma ki ma ko tegoon. Hmm. après tey laa xam ne bokkut ak ka ma ko tegoon man. Hmm. ki la yóbbu ca ah, ki ma yóbbu ca moom. waaye moom ah, da fa yóbbu waaw moom da nga da nga koo ni nga doon as isaara dafa mel ni da nga doon wax ne ab sëriñ la ab sëriñ la. déedéet déedéet sama sama sama sama sama déedéet sama. dama dégg mu naa moom santu Mbàkke santu dara nee na génneel vidéo yi fu ma waxee ab sëriñ la. déedéet moom da nee na ni nga isaara. ne ma is moom moo wax loolu. waaw xam nga yow li am solo mooy. Mm. li ma wax man waxuma ko ci proq. Mm. waxuma ko ci ci sama néeg. Ah, ci internet laa ko waxee. Mm. dama ci internet ba rek déglu xam nga wax moom bu ñu la koy nettali. noonu la baax man boo gisee. boo ba wax jotee. dama damaa nekk ba wax jot. ma door a wax lu mel ne waa saytu Sénégal d' accord wuñ ci de. ñu ci bari ndax nee nan sëñ bi wax ji dara leeru ci et ba ci noppi tamit beneen bi ci des euh, sëñ bi gis nan la nga tabax kër gis nan la nga yor ab oto takkaat nga séet. <laughs> loolu la te xamuñu sa métier xamuñu sa métier la ci yow ah wax ci yow laa déggee lool yi. Ah. waaw ci yow laa déggee lii ci yow laa ko déggee. loolu am na koo wax man dama. Ah, d' accord am ñu wax ko. comprendre ko mm-hmm. suñu yooyu ba nga ñëw ci kër ga ma fekk. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. ci kër ga ma fekk gu ma moomal sama bopp. comprendre bu dee suuf itam. wax naa la ko dama koo doon man Touba laa dëkk. Touba boo ko xaajoon ñeenti xaaj. Ah? ñaari xaaj yi sama maama ko moom. suñ baaru ko moo ko moom. comprendre boo ko xaajoon ñeenti xaaj. ñaari xaaj moo ko moom. Mm-hmm. kilifa yu mag yi yu mag yaa mag. Mm-hmm. fañ dëkkee moo doon ko moo doon ko jox. Mm-hmm. xam nga ni wax yow. ba fii nga toog nii. sans sans maa bokk moom. comprendre te moom damaa yow sori ba ca kaw fii suuf dañ ko fi nekk dañ ko am bam te si mooy suuf si gën parce que fi la nit ñi ba ci des mooy la nga doon wax te yëgut nag. sëñ Saliou. ah sëñ Tuubaa suñu maam. waaw waaw vraiment. lu mu ñu lu mu ñu mën lu ñu mën nag amut te lu mu ñu mayut itam amul li nga wax daal mooy jële woo fa xaalis déedéet billaahi li si laa ilaha ilaahu bu dee jireen bu dee sama kër gee defar dërëm ab Antoine dem na ci yàlla naa yées ci lim ci ñu sant Mbàkke hmm. barkeb alquranul karim yàlla naa yées ci la sant Mbàkke bala maa dee yàlla na yàlla rocc sama ngëm bu dee lu am la hmm. yàlla naa deyaale kon ngëm ak yéefar laa dox bu dee sama dërëm dem na ca waaw Pastef duñ la xaw a mere tuuti xaw laa def ñun defoon ñun defoon moo laa mën gën duñ la ko def man li tax awuma ngam problème hmm. daluma ci seen leader tudduma seen leader seen leader daal du waaye da nga doon jaar ci seen biir leader di jaay sa bopp di dundee maanaam di di ah, nekk ci parti bi ba dundee ci ah parti bi la melal nii nag sëñ ah, kon du kenn du la déglu Ousmane Sonko boo du ma déglu ku lay déglu par exemple ah man ab jàngalekat laa dina ko jekk ah jàngalekat loolu ah. nga xam ne woowee def loo ay conférence fu ne ci Sénégal ak fu ne ci bitim réew ah oui conférence de lycées damay sant yàlla de. ah fii ni pass Facebook gars yi di dee abonné si. Ah? dama ne mbaa yoroo pass Facebook gars yi di dee di dee abonné. ab lan. page Facebook ma ne maa yoroo ko nii nii ni Barthélemy amoon di mujj. déedéet déedéet naa <laughs> na abonné waat leen ak yooyu. ah déedéet déedéet man abonné yoruma page Facebook. Ah. yoruma daal a ba sax yow créé ah, ba tey loolu lépp man d' naa ci. man ah. moom ñoom ñooñu ñoom. ñoom ñoom ñoom. ci waaw. waaw kon tey ki ne man. Hmm. Euh, maa ngi tabax kër kër am naa ko bu yàgg amu ne këru tay oto na oto it am naa ci ñeent ma dawal ñeent. fi mu toll du fi mu ne nii mais dama ne la na amagum naa ñeenti oto fi naa hmm. ngi hmm. ñaari oto. ah waay sëñ yàgg na de. barkeb si déedéet loolu kay sëñ Fana bi nga wax nii rek nga ci nga am. oto déedéet sëñ na ma am oto laajal ñiy déglu. Ah. oto ba amee léegi ëpp na juróom-ñeentaat. oto kañ laa koy dawal ma ko day dawal mënu xaw ma kañ la. Ah. oto yàgg naa koo am. Ah, du tey dégg nga fi mu ne nii nii xool fi mu ne nii nii. xale ba sax teg na ci ne takk nga seet ma ne ah seet <laughs> naa takk na seet ma ne loolu moom xam ne daal day kiyam rek xanaa. loolu loolu loolu xam nga loolu tax nga xam ne loolu loolu comédie la. Ah. ci nga xam ne loolu comédie la. xam nga la ah, xam nga loolu moom comédie la am. ñaar yi kat faaw ma loolu comédie la loolu am kër am oto wax oh, dëgg yàlla woykat ba waxoon naa ko am naa oto am naa kër. non loolu comédie la loolu comédie la loolu comédie la loolu way na tey. loolu ñoo ñoo couple couple bi loolu la sëñ bi loolu mooy couple de sëñ bi. Ah. xam nga tax muy comédie. xam nga tax muy comédie. man ba may am soxna. Ah. ba mu boobu Sonko mii kenn xamu ko. Mm-hmm. dégg nga. Mm-hmm. ba may am oto itam boobu Sonko kenn xamu ko ci gàttal mm-hmm. waaw. te man ku ma mas a jox vingt cinq franc. ci waa kër Sonko yi ma jënd oto. na génn nam na ma ko. laata naa difi la defoon def naa ko. difi laa difi def de. ku ma a jox vingt cinq ma jëndal oto defal lii na ma ko wax. nga bëggoon nañoo génn fii sax wax ci. waaye rek leen am na pour leen am na mooy man. waaw léegi te noo wax ci. dégg nga euh, man. Ah. samay soxna yi ñuy wax. Mm. samay mbokk laa dem ñoo am ay soxla. laajut ma yi ma bokkal sëñ Tuubaa ni sant Mbàkke. Mm-hmm. danaa dem ñoo am ay soxla. laajut ma dara. alhamdulilah waaw. soxna da moom loo ko woyofalee bu ñu la taxal ma jël la ko. ci sàkkal bi faaw nga laajuma vingt cinq franc loolu moom bu dee ah. xaalis defuñu ko ci. Ah, dañoo xam ne naaw la laa ñu may ma soxla. Ah. loolu am nga jom. Ah, <laughs> am jom doon seeti Antoine Diome. <laughs> <laughs> Eh, loolu aw xaar waaye jërëjëf la. ah aw xaar la